di leen sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen yi nga xam ne yéen a safoo di teewlu xibaar yi ci Equivox TV mbokk yi dal leen ak jàmm ñu koy dooree rek tolluwaayu mbasuma coronavirus tey ci aljuma bi ci 2168 test yi nga xam ne rek amal nañ ko 279 ñoo ci jot positif ci 279 yooyu nag ñu ci am 102 cas contact 177 cas communautaire 6 yoo xam ne rek jot nañ cee ñàkk seen bakkan ak 261 yoo xam ne faj nañ leen ba ñu wër campagne bi ñu dëdmal wàllug ñekk yi rek ngir xeex li nga xam ne moo di feebaru coronavirus dinañ ko amal nag ci talaata bi ñaar fukki fan nag ñett ci weeru février yooyu les vaccin nag ñi nga xam ne rek daal di nañ leen ci ciblé rek nekk ñi nga xam ne dañoo nekk ci troisième âge bi am ay feebar ak ñi nga xam ne ñoo di personnel de santé yi ci wàlluma jeexi jaaxa bi nga xam ne nag askan wi am nañ ko rek ci yooyu la ñekk ndax baax na wala baaxul ki nga xam ne moo di jëwrin bi ñu dénk wàlluma wër gi yaram di Abdoulaye Diouf saara moom nag mu ngay rek dalal xelu askan wi te di leen xamal sax na nag yooyu la ñekk rek bu ñu dëdmalee bile campagne moom mooy ki xam ne mooy njëkk ñekku ci yooyu la ñekk xayma ak population Sénégal ak ni mu toll ñi nga xam ne ñoo di division du recensement et des statistiques la ñu xam ne rek moo di ci atuma 2020 lu tolloog 16 million sept cent cinq mille six cent huit habitants la ñu daal di am mu mel ni nag téeméer boo jël rek ñett da ca daal di yokk ci atum deux mille vingt boobu boobulee xayma nag bi ñu ko defee rek la ñu nemmeeku mooy ñuy ji jigéen ñi ñoo ëpp li nga xam ne rek moo di góor ñi ci ñi ci ëpp rek ay jeunes la leaderu Pastef bii di Ousmane Sonko daal dina amal ab visite démb rek fële ca université Cheikh Anta Diop de Dakar li waral boobule visite nag mooy seeti rek étudiants yi nga xam ne dañoo amoon ay gaañu gaañu ci affrontement yi amoon fële ca cité kër góor gi ba fa demee nag moom Ousmane Sonko daal dina fa fekk rek mbooloo bu takk boo xam ne rek daal di nañ ko dalal mu tombé nag ak li nga xam ne moo di feebaru coronavirus boobu mbooloo ñu koy tere. ministre bi yor wàllum njaay meeg njënd bi di Aminata Assome Diatta amal na ab visite moom itam ma démb fële ca jur Diourbel ànd ci nag ak ki nga xam ne moo di directeur général bu AGETIP bu AGETIP kii di El Hadji gay li waral boobu boobule visite nag mooy rek programme ba nga xam ne dëdmal nañ ko ngir defaraat rek li nga xam ne moo di Marseille Sénégal ba ñu demee nag ca Marseille Diourbel Ndumbe Diop lañ fa nemmeeku rek moo di daanaka liggéey ya nga xam ne amal nañ ko fa rek yemb na ba noppi ba tax na nag ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi rek daal di nañ rafetlu li ni mel rek te kontaan trop. jër ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi doon na teewli xibaar yi ci Equivox TV fii la ñuy daal di yem ak yéen tey rek di leen jox di daje ëllëg incha allah.